fii ay élection euh, présidentielle yu 2024 te moom bokk waaw man de jàpp am na am na wax ñu mu fi waxoon tamit ci France 24. oui lu mu fi waxoon que que bu bu bokkul ci élection yi le pays dina dugg ci ci. mais loolu nag changé wul dara ci posture Ousmane Sonko sa c'est Ousmane Sonko tout craché <laughs> c'est quelqu'un bi nga xam ne. Euh, dans son discours c'est pour ça que ñenn ñi nga xam ne en tout cas àndandoo ñoom je comprends très bien pourquoi. Mm-hmm. parce que c'est quelqu'un qui ne passe pas par mille chemins en fait pour mu expliquer tout simplement lii yëg te bu leen fàtte benn affaire aussi. Mhm. président de la république Macky Sall xale la Ousmane Sonko tamit xale la ñi topp ci ginnaawam ay xale lañu. quel est le langage de la jeunesse d'aujourd'hui c'est un langage beaucoup plus affirmé mmh. man je ne vois pas des élections présidentielles de 2024 sans Ousmane Sonko yooyu élection du sax neex Mahfouz élection yooyu du neex Cheikh Ousmane. ñi ñuy seetaan wallaahi du neex émission gis nga loolu ngay am présidence li gën a naqari Sénégal balaa moo neex dëgg-dëgg Ousmane Sonko ko mais quel est lu problème pourquoi euh, aujourd'hui ni ñuy jéemee ay pexe ak i réflexion mm-hmm. ci sunu xel mu muus tubarkàlla macha allah pour mën a génne euh, ñenn candidat c'est que en fait man li ma mës a déranger Sénégal mooy tànneef bi ci participation bi ci boppam moo warul dépendre d'un chef d'État ou d'un parti au pouvoir mmh. en vérité su fekkente ne dañu ne dans dañu nekk dans un état démocratique tout revient au peuple ñoo war a décider lépp nag war na tegu nag ci ay charte tegu ci yoon tegu ci loi pour que ñu mën a organiser ñu bañ a dund ci benn société boo xam ne société bu désorganisée lay doon mais euh, même parrainage bii ñuy waxtaanee nii yëpp objectif bi segg gi la tey ñu fi bëri ñu fi déclarer seen candidature bu ñu yeggee ba ci cappaandaw bi du ñu bokk Mahfouz duñu jàll barrage au parrainage yi bu loolu weesoo conseil constitutionnel mu ngi leen di xaar et pour man euh, des élections présidentielles dafa war a nekk un rendez-vous boo xam ne au-delà de l'aspect politique maanaam dafay am benn cachet boo xam ne cachet populaire la et le cachet populaire la il est important dafa am solo dañ koy jël en en compte xam nga même sondage yi ñuy foowee mais ces sondages là naturellement da ngay gis Euh, position yi nga xamante ne nit ñi am nañu ko bu fekkente ne nag dañu ne danoo bëgg tabax Sénégal boo xam ne sénégalais yee ko moom. Mm-hmm. baax na ci ñuy bàyyi xel la majorité des sénégalais fi ñu fi nga xamante ne foofu la ñu féete. Mm-hmm. néew ma ne mën na xam nga Ousmane Sonko mën naa bokk te du gagné. Mm-hmm. si. mën naa bokk te du gagné. parce Sonko du yàlla. yàlla tànn na ki war a nekk président de la République ba noppi. mais dañu ne bu ñu weesoo cette question de la divinité. sur le plan humain que nous sommes ñun ñëpp et bu ñuy jàngat également ci wàllum politique maanaam dafa am loo xamante ne ni mënuñu ko naataable ci histoire politique Sénégal dama ne la sànq. Hmm. Ousmane Sonko dafa changer la donne de la politique la façon de faire de la politique c'est la pour la première fois au Sénégal ñuy gis homme politique di yëngu ci ay activités mais ay nit di ko cotiser di ko jox seen xaalis. mosul am. Hmm. yow loolu da nga yaakaar ne Senghor ba mu fii nekk xalaatoon na ko. Abdou Diouf xalaatu ko Wade xalaatu ko Macky Sall mii ci boppam amul loolu c'est le seul politicien boo xamante ne yàlla def na ci moom barke xam nga problème bi nag euh, parfois lu sax question lii yëpp problème bi problème acceptation la nangu. Hmm. mooy nga nangul Cheikh Ousmane li nga xamante ne yàlla da ko ko may. ci ay nit di ko déglu di am mbégte bu di ko déglu muy def ay analyses yu profonde hmm. nga nangul Ousmane Sonko nii c'est un politicien boo xam ne mu neex la ak mu naqari la yàlla moo ko may c'est un phénomène qui est venu changer la donne de la politique léegi tu veux me dire c'est ce phénomène là dañuy organiser ay élections présidentielles yoo xam ne moom liggéey na parce que liggéey na ci wàllum mbooloo. Mm-hmm. xale yi projet la nu gëm. sensibilisation. cette sensibilisation. Mm-hmm. et même si tu veux euh, il a donné même une orientation par rapport à une certaine communication donc mm-hmm. ce gars ba ñu yegg ci fi ñu war a yegg ñu ne ko yow doo bokk te nit ñi mënuñu comprendre ne loolu aspect judiciaire moo tax mënoo fexe ba du ñu écarter la thèse de la politique mm-hmm. te pour man aussi loolu bokkul ci li nga xamante ne dafay jëmmal réew mi dama ne bu fekkente ne on travaille pour un Sénégal appartenant aux na nu fexe de telle sorte que l'orientation des Sénégalais politique comme on parle de politique mu mën a participer ci élection yi parce que élection présidentielle yu 2024 sans Ousmane Sonko bu ca Pape Djibril Fall bokkee yaa ngi dégg mm. Mahammed Boun Abdallah Dionne bokk ca je donne des noms comme ça mm-hmm. Aminata Touré bokk ca même boo indi woon Madické Niang ci ay jamono mi nga xam ne daan na neexal présidentiel. bu ñëwee bii du ko sàppali day lewet il faut waa ji bokk nañ ko bàyyi mu wax lu am solo muy ñi nga xamante ni tamit ci opposition bi lañu la ñu bokk te peut-être que ñi ngi wax ne Ousmane Sonko dafa dafa war a bokk mais su ubbee seen xol yi da xam ni Ousmane Sonko bu ñu am bu ñu amoon li leen gënal mooy Ousmane Sonko du bokk ñi ngi koy jege. pour bëgg euh, si toutefois Ousmane Sonko demul tey mu mën a ñu mën a récupérer électorat am. waaye nag gis nga kaay ma wax la xam nga ñi nekk ci opposition bi dama ne la sànq dañoo presque inactif xam nga lu tax dafa mel ni dañoo toog di seetaan benn match boo xamante ne dafa dox ci diggante ñaari mbër rek président de la république Macky Sall président Ousmane Sonko ñoom ñaar. ñu seetaan leen ci riñ bi. mais est-ce que intelligence politique maye na mooy ñàkk nangu gi ma doon wax sànq nga gis ne waa ji am na lu ko yàlla may. ci wàllum politique mu ngi avancé man su ma doon parti opposition c'est-à-dire mën naa bañ a ànd ak moom ci lépp parce que nag nit mënoo ànd ak moom ci lépp am na ci ay position yoo xamante ne yenn gis-gis doo ci d'accord ak moom mais au moins ma apporter sama soutien au moins ma exister politiquement via l'autre parce que même l'autre supposons au cas ou bokkul je bien au cas où bokkul mm-hmm. ni ñuy defee réflexion ci aujourd'hui di réfléchir sur le candidat bi président Macky warataan war a tànn pour APR mais ce sera la même chose on sera obligé de réfléchir à un plan mhm. on espère qu'il n'y aura pas de plan parce qu'en vérité ñi ngay waxal bu fekkente ne am nga dégg-dégg plan bi système bële la doxee doxewul fii ñii A rek la ñu am amuñu beneen plan. Mhm. loolu il faut ñi ñi comprendre ko donc man mënuma comprendre ne dama nekk ci opposition nekk ci am réew man bokkuma ci daray activité réew mi. Mhm. lan moo xew fii ci Sénégal loo xamante ne gis nga ay opposants ñu ne nii dëgg-dëgg ci wàllu opposition la ñu nekk or mi ñu nekk Yewwi Askan Wi ah je te dis. Mm-hmm, mm-hmm. ñoo xam ne ñu ngi participer moo xam ci par moo xam ci parole moo xam ci participation à des marches pacifiques moo xam ci prise de position même ci ay émission télé yeneen yu ni mel mu leer na leen ne ñii certes ànduñu ak waa ji. Mm-hmm. mais au moins am na ci loo xamante ne benn dinañ solidariser wu de deux ci li ñu wute ak moom au moins dinañ développer une stratégie politique pour convaincre les autres. Mm-hmm. que ñoom seen gis-gis euh, existé na ci wàllum politique mais ce n'est pas fait malheureusement. Mm-hmm. c'est des gens yoo xam ne dañu toog di seetaan Sénégal nag Mahfouz Cheikh Ousmane moo toll foo xam ne. président de la république Macky Sall mës naa la ko wax ci benn émission il n'est pas chanceux donte que c'est un chef d'état boo xam ne xale la mais période bi muy falu 2012 ak léegi ku fi nekkoon xale màgg nga. Mm-hmm. ce qui veut dire que moom génération bi mu jiite nii du nu génération boo xam ne danuy pardonner danuy baale. Mm-hmm. loolu du chance am moom. Mm-hmm. chance Wade la woon à un certain moment. les réseaux sociaux aussi. les réseaux sociaux l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui euh, toutes ces chaînes. qui pilulent de partout et qui font le travail que le média traditionnel ne fait pas. Mhm. parce qu'il y aussi une certaine démission de la presse bi nga xam ne seetlu nañu ko ci suñu ay confrères ci ni ñu ko sañ a wax. Mhm. mais lépp tànneef la rek man moom je suis assez démocrate sur ce point de vue là mais dama la bëgg wax ne maanaam ni may jiite ay xale lanu xale yooyu ngay jiite dafa jafe pour nga intégrer ci seen bopp loo xamante ne ñoom dañ koo dund dañ koo fekkee maanaam duñ ne ci jamonoy diw. ñoom ci seen période la lañu ko fekkee ñoom période boobu lañu ko dund Sénégal moo tollutul ci réew moo xamante ne les gens sont décidés à se laisser faire ou à participer à des magouilles politiques les gens ont décidé de prendre le destin de ce Sénégal en main et pour man c'est une position assez sérieuse à considérer.